yow xuccaw xadi gay yow mu leetu ay fiir yaa ma gënal maag bay mu dem ba fay baal jolof ku ko seetaan yàlla na nga déggee maam ni xolal eteen bu fi kigee ndëwër ak ragal du fanaan fiit wa day maas palampu kay jox ma résultat ya yow mi fanaan naan bëri bal taxuta mën a jam ab fi tay fetel na bëri doole taxuta mën a dóor ab fi tay dóor garab gu taxaw te xobam bëgg meññi doomam yi lu ko waral Pa Lamp yow yaa waral say buddi bulu xaar ren ba daa dëgër ndax bëre ba bukkeeg mbaal gémmin ga daa motul doom bee waral maas eey dabak si bi xoolal xar xartum mbaañu xar si digg bi mbaañu xar la mi ngi ron. xam naa dalay bett waaye ka am ci sa man fu ma ne man tos. yaa ngi daanu yëf yi. tos. ok. ka am ci sa. laajama la. yéen da ngeen bàyyi ba ma génn ngeen ñëw ci kër gi organiser seen sabar bu rëy. Mhm. di sabar wala kër ba mu saay. eh bu ma waxati loolu de. tos ki ma ki ma kii yaa. ki ma kii yaa laajama la. laajama la. nii mais nag ku dëkk as bernard nga jur doom rek sa doom rek càtt ko yow boo waxaatee Assane Diouf naa la yow xam loo bëgg ah utiliser sa talent bi nga am mooy nii sa corps bi jaayal sa bopp astafirullah foo koy tax nijaay nijaay soxor si déedéet yow ma yow soxor si sa war naa ne ci kër gi nga ne xàpp teel nii rek bàyyi ko nii moom a gën a teg ki sa xam yee sa sa leen mel ni ay

saa yow soxlaa douze. te amul rasu amul ak jom amul ak rasu. kii xaar xaar tuum mbaa ñu xaar si digg bi mbaa ñu xaar la yow. nga ya, kan man situation ba ma dem ci beneen du mu ko amee ci li def di ko weer xet gi day ñëw ba dama dañuy ximbal dina ko gis nga gis nga lay dund. nga ba. man na may liggéey yoon ma sama man liggéey ma ma ñibbi ba moo gënal parce que man Baara Mbaye xam pas rambal Baara Mbaye kese kese kese nga ne rek mbay nga nga sama sol. sama tubay la sol. yaa ma sant ma yaa ma sant sama tubay yow. yaa ma sant ma liggéey ma ko mos a sama tubay ma ko mos a sama tubay. waaw waaw wala fuut ku ko seetaan yàlla na nga déggee maam ni xolal eteen du fi ki gaynde wër ak ragal du fanaan fiit wa day maas palampu kay jox ma résultat ya yow mi fanaan naan bëri bal taxuta mën a jam ab fi tey fetel na bëri doole taxuta mën a dóor ab fi tey taxaw te yori xobam bëgg meññi doomam yi lu waral Pa Lamp yow yaa waral say buddi bulu xaar ren ba daa dëgër ndax bëre ba bukkeeg mbaam gémmin ga daa motul doom bi waral maas eey dabak si bi xoolal xar xartum mbaañu xar si digg bi mbaañu xar la yow